fii ci Touba ci quartier Soura benn xale bu góor buy wuyoo ci turu du Fall ay atam toll ci ñaar fukk yu teg moom moo dox ba daanu ñàkk bakkanam loolu nag mi ngi amee ci dëj boo xam ne fa la doon dem ki nga xam ne moom moo di waajuram wu góor di lamin Fall di leeral ne da doon dem moom it ca dëj boobule ñu woo ko ne ko sa doom ju góor ji dox na ba daanu ñàkk bakkanam fii li fi am daal mooy dama xëyoon doon dem benn rob bi ma demee ba ci yoon wi ñu woo ma ni ma sa doom ji doon na ñëw ci rob bi ngay dem far daanu si yoon wi bi mu daanoo si yoon wi tamit yàlla suñu borom dogal ci li mu ci dogal waaw Lamine Fall mi nga xam ne mooy waajuru kii di Modou Fall mi ñàkk jotu la àggale leeral gi ñenn ci ay mbokkam xëcc ko daal di koy yóbbu waaye buñ sukkandikoo ci xibaar yi nga xam ne jot nañ ko taataan Modou Fall da doon def musculation maanaam ay entraînement ci loole ci la jëlee woon ay gaañu gaañu yoo xam ne loole lañ jortu ne moom moo ko yóbbu yowmal xiyaam ñi nga xam ne nag ñoo di waa sapeur pompier ak waa croix rouge ñëw nañ jël koor bi yóbbu ko ci mat la bul Matlaboul Fawzeyni ngir def autopsie xool lan moo tax mu ñàkk bakkanam